Clédor, on va démarrer euh, l'actualité euh, maintenant aujourd'hui hors de nos frontières. parce que bu mu ne hors de nos frontières on va parler euh, du Mali. Mhm. nga xam ne mën nañu wax ne euh, suñu ay euh, voisins proches la. Mhm. ñu gis ne euh, ñett fan yi ñu weesu aussi amaan na ñu yëngu ñu bëri sa jàpp ne ñu koy qualifié yi nga xam ne mooy beneen coup d'état. Mhm. mais finalement président de transition bu fa nekkoon ak kii di premier ministre militaire yi ñoom jël nañ décision libéré leen démb si mercredi bi. ñu leen doon reproché mooy rek dañoo rek signé ay. waaw c'est c'est c'est triste pour lafricain parce que euh, la révolution malienne dañ ko confisquer depuis le départ parce que amoon na ay série de manifestation de la société civile et des mouvements citoyens yu mettoon pression ci régime Ibrahima Boubacar Keïta d'alors euh, ba mu mujjee ni mu mujjee euh, au dernier moment le euh, militaires yi confisquer pouvoir bi parce que man j'appelle sa confiscation du pouvoir parce que dañu jël pouvoir bi euh, ni léegi dañuy dem pour une période de transition de trois ans communauté internationale bi bañal leen ko donc CEDEAO teg leen pression Nations Unies teg leen pression France teg leen pression finalement ñu réduire délai yi un an et demi léegi euh, ñu tenir ay conclave ba ak tous les acteurs politiques mhm. ba déggoo ci benn Euh, gouvernance de transition benn gouvernement boo xam ni euh, mooy yorandi mbir yi ba ba ñuy organiser ay élections euh, libres et démocratiques mm-hmm. léegi ñu nommé un président un premier ministre un gouvernement mm-hmm. régime civil bi nekk fële mm-hmm. Assimi Koïta moom nekk le vice-président mais apparemment ce vice-président là c'est c'est c'est c'est le président réel et le président de la transition et le président virtuel Euh, ñàkk tàggu vice président bi euh, le le le le militaire. moom la ñu reproché président bi ak premier ministre ñoo xam ni dañ leen élire pour ñu conduire la transition kon bu ñu demee ba leen di arrêté loolu lu inimaginable la ci dëkku démocratie moo tax ñu dañu am xol bu metti parce que mënoo imaginer Sénégal par exemple armée di fi arrêté ay hommes politiques voilà wala di immixé wu ci gestion wu politique. donc Mali malheureusement depuis Moussa Traoré. Mhm. Euh, Moussa Traoré xam naa xale yi duñ ko xam dafa coup d'état woon nekkoon président Mali de exerce fa dictature te yàgg na fa donc après moom y avait le général euh, ATT Amadou Toumani Touré donc connaître nañ ñoom ay régime militaire donte militaire yooyu dañu dañu joyanti démocratie bi teg ko ci yoon ba Alpha Omar Korane ñoo falu après à ATT dellu siwaat donc amoon nañu foofu au moins benn démocratie buy respirer buy dund. Mhm. mais bu fekkee ni tey jii ay militaires dañu ñoo confisquer loo xam ni euh, tawatu tout un peuple la conquête tout un peuple ñu ñu jëm vers une transition boo xam ne day restaurer restaurer cette bonne respiration démocratique d'antan mhm. ñu dem ba ci biir ñu gis ni yaa y a des hommes forts de l'armée yoo xam ni tout part toujours du même camp de kat yi. Mhm. ça part toujours de là-bas dafa mel ni foofu. mooy palais présidentiel lu Mali ce camp militaire là finalement parce que fa la ñuy décider de qui va être marionnette qui ne va pas l'être parce que finalement ay marionnette la ñuy teg parce que en réalité militaires yi ils n'ont pas lâché le pouvoir loolu nag euh, c'est le peuple malien qui doit régler le problème et ba noppi am ci cette lecture là parce que bu fekkee ni dañ fi teg ku leen neex ñoom euh, loolu ça veut dire que ñoom ñoo yore la la forte main sur sur le pouvoir te loolu moo dommage en Afrique parce que dafay tardeel réew lu bëri bëri bëri parce que ñoom déjà ñu ngi jànkoonteeg ay rébellion ay problème interne mm-hmm. léegi bu ñu ci bëggee ajouter ay problème de démocratie di def loo xam ne dëppoowul ak li askan bi bëgg euh, le M5 ak ñoom euh, imam di ko mm-hmm. euh, imagine ñooñu jógewaat jó jógaat di di di manifester waat encore mu nekk un éternel recommencement loolu vraiment militaires yi ñu ko teg Afrique au-delà du Mali mais dañuy dañuy gàccal Afrique au-delà du Mali parce loolu kenn mënu ko xalaat dans un pays comme le Sénégal wala comme d'autres pays démocratiques. Mhm. Euh, sànq Clédor yaa ngi koy brosser ci say euh, argumentaire euh, Mali nekk na dëkk boo xam ne dafa am benn certaine déstabilité bi parce que gis mhm. neen carrément rébellion ñu ngi fi. Mhm. wàllum terrorisme beeg yooyu ñu ngi koy wax. ñu gis ne aussi militaires yooyu nga xam ne fu mu toll nii ñu ngi sax xaccoo pouvoir wala sax di accuser ay civils ndaxte nag ñoom dañoo defar benn gouvernement boo xam ne sans les aviser. de gérer euh, la situation euh, sécuritaire de leur pays. Donc, leur responsabilité par rapport à ça, est-ce qu'ils se conduisent à des personnes responsables quand même waaw fi nga laal euh, day day métti parce que euh, c'est vrai que armée malienne dafa battre en débandade mhm. à l'arrivée des des des rebelles. voilà su dul français mhm. force Barkhane. Mhm. Euh, du ñu woon stoppé progression rebelle yi mhm. vers vers Bamako c'était mhm. inexorable mhm. après ci la ñu dagg euh, le territoire en plusieurs c'est vrai qu'il y a des intérêts aussi euh, dans ces zones là ay Kidal ak yooyu tout ça donc armée bi c'est pas une armée boo xam ni day day honorer le Mali parce que sur le front la ñu gënoon soxla taxawaayam que sur le terrain politique parce que boo xoolee fii au Sénégal on a une armée boo xam ni euh, c'est pas parce que je suis je crois que moo gën a républicaine armée Mali mais ba noppi moo gën a expérimenté moo gën a am am compétence que armée malienne parce que ñun am nañu rébellion ici depuis 82 en Casamance mais mosoo gis un centimètre carré boo xam ni dañu fa ériger drapeau bu dul drapeau Casamance wala benn doomu Casamance bu am beneen nationalité wala wala benn zone d'interdiction en Casamance donc suñu intégrité territoriale suñu armée maintenir na ko au contraire dañuy projeté wu sax ay ay ay Gambie parfois pour régler des problèmes depuis euh, l'ancien président là du régime de Kukoy Samba Sagna euh, Daouda Daouda je sais pas comment il s'appelle fàttali naa turam euh, à sa suite euh, Yaya Jammeh on est intervenu en Guinée-Bissau le général Daouda Diawara Daouda Diawara voilà Daouda Diawara voilà mhm. à sa suite en Guinée général Yero Koné conduire na benn expédition pour restaurer la République guinéenne parce que boobu Nino Viera dañ ko coup d'état woon général Ansoumana Mané nga xam ne c'était un soutien des rebelles donc on a une armée comme ça mais malgré cette valeur guerrière et militaire de cette armée ñoom ñu doo xalaat mukk ñu naan dañuy jàpp ay premier ministre wala ay ministre wala ay président parce que on est ici on sent qu'on est dans une république ñun li ñuy jooy kay mooy ay problème mu liberté ak problème démocratie pour parfaire mais mais mais mais structure république bi Euh, ça ne souffre euh, d'aucun discrédit, d'aucun dysfonctionnement. Par contre, au Mali, la République devient l'armée. Parce que le camp de Kati, foofu la ñuy defaree foofu la ñuy euh, battre les cartes. foofu la ñuy distribuer les. ça et et quand ils sont pas avertis ñoom dañuy ñëw wan la ni du yéen ñoom la. Mhm. donc ils destituent le président le premier ministre ba noppi arrêté leen. et on parle de libération. c'est pas c'est une gloire. lu ñu lu ñu lu teg gàcce Afrique la. te je crois que peuple malien. moo war a jógaat donc bien fait de démissionner quand même parce que ils ont été humiliés. non ces démissions. Euh, pour moi c'est des démissions euh, sous contrainte. Hmm. Euh, Ibeka il a démissionné au camp de Kati. kuy démissionner sa kër wala sa bureau ngay démissionner mais pas pas ñu téye la nga nekk en captivité di démissionner. loolu amul benn crédibilité parce que on peut leur leur leur imposer ça leur extorquer ça et quand tu es en face de militaire bon c'est ta vie que tu mets en avant tu sauves ta vie d'abord et ta liberté ensuite après le reste bon, euh, verra donc c'est ça qui est malheureux en Afrique il y a des gens yoo xam ne pare nañu au martyre mais c'est pas tout le monde am na ñoo xam ni euh, dañuy bañ ba dee mais duñu démissionner bu leen militaires yi reyee ñu dee mais y a des gens aussi yu am ay ay soucis ay instinct de survie et c'est tout à fait humain. Mm-hmm. qui parle de Mali wax aussi. frontière nu mu jege ak Sénégal mm-hmm. mun nañu wax ne sax euh, si on convoque l'histoire benn pays la woon tey euh, lu xew Mali nga xam ne mun nañu wax ne dëkk bi it fu mu toll nii mun nañu wax ne durant ces six dernières années dafa nekk ci benn situation bu doy wax terroriste yaa ngi fa nga gis ne aussi euh, les Maliens même si seen biir euh, ils ont du mal à cohabiter ensemble tey jii Sénégal yan conséquence la war am par rapport à cette situation euh, bi nga xam ne mu ngi prévaloir au sein euh, de la République du Mali. waaw ah, c'est vrai que avant c'était la fédération du Mali. Mm-hmm. après ku nekk demal boppam. donc lu xew Mali dinañu intéressé. Mm-hmm. mais quand même réalité yi dafa dafa dafa wuute sur le plan militaire sur le plan de la démocratie sur le plan euh, de la paix sociale parce que maa ngi lay wax tantôt euh, problème bi ñu am en Casamance c'est différent de problème bi ñu am au Mali Clédor <laughs> doguma la sax mais c'est juste par rapport ak terroristes yi. voilà c'est-à-dire est-ce que mënuñoo dox jéggi frontière ba ñëw suñu dëkk yi quand même. c'est-à-dire terrorisme. Mhm. Euh, euh, fonds de commerce la boo xam ne. <laughs> Euh, dañ ko utiliser ici au Sénégal. <laughs> Uh-huh. de façon très abusive. Mm. parce que bi rébellion bi ñëwee Mali. Mm-hmm. français yi ak ñu bari craindre nañu mu dem ci pays frontalier yi mu ñëw mm. ba ay ay Sénégal donc te Sénégal France la fi am. de grands intérêts donc des fois dañuy agité psychose terroriste bi juste comme ça mais du du réalité parce que yooyu li koy indi irrédentisme la nii ni par exemple ñun ay berbère lañu ay nit ñu weex lañu. Mhm. on ne différent des bambara et autres donc dañu war a am suñu territoire parce que fii am na or am na uranium et cetera et cetera nga frontière benn dëkk bu mel ni Libye nga xam ni foofu les armes ça ça pullule ça sa ça trouve comme comme comme comme des petits pains. Mhm. xam nga donc loolu day favoriser euh, la la la violence et la lutte armée te ñooñu c'est dafa am ay déserts les les les les terrains ne sont ne son pas les mêmes alors que fii euh, boo rombee dëkk munoo daw dix kilomètres te tegoo ci beneen dëkk. Hmm. fële da ngay daw ay kilomètres doo romb benn dëkk y' a beaucoup de no man's foofu donc du du benn quoi c' est beaucoup plus difficile à gérer là-bas dans le désert. Mhm. qu'ici euh, en en pleine agglomération parce que fii ay agglomération kese la. te ñun amuñu culture lutte armée au Sénégal. Mm -hmm. on a une culture quoi qu'on démocratique mhm. ñun suñu xeex weesuwul xeer ak yooyu. xanaa oh, xanaa nervi bi Macky Sall yi ñoo fi commencé indi ay fusil à pompe. Mhm. di di di éclater ay ay ay tetu xale. mais loolu du suñu suñu aada ñun. xamuñu ko fii